politique de téere bu ñuy takk je vous jure. saa yëf yi mu ngi jigéen wee ci Idriss bilaay weewu Idriss il les dépasse de loin yamuñu bokkuñu parcours politique bokkuñu euh, euh, euh, liggéey bokkuñu mais politiquement il les dépasse de loin maintenant c'est c'est vrai que yéen ngeen nekk ci jamono 2000 non non non non non non non non non nekkuñu ci jamono 2000 de ñu ngi ci demuñu 2024 ñun on se prépare à gouverner ce pays là on a les hommes qu'il faut on a euh, euh on a la stratégie qui va nous permettre xam nga mu dañ nga waxaat mu dañ. wax mu dañ décret dootuma fal. non ça 63 ans damay bàyyi. voilà ça ça c'est des questions qu'on a dépassées ça on l'a dépassé on ne va pas y revenir ça appartient à l'histoire ñun li ñuy xool ci kanam la ñuy xool li ci ginnaaw teg nañ ko fële ñun on est on dans la perspective moi j'ai j'ai par exemple man j'ai fait des propositions yoo xam ni. Euh, xam Olof Ndiaye dafa wax ni booy naaw say dunku di ruur. dans le domaine de l'éducation xam nga ñu bëri ñu doon défendre Idrissa Seck. Hmm. tey dem nañu créer seen yëfu bopp. waaw pour gëmloo que ni c'est ça le talent de ñoo fi nekkaat. sa force. <laughs> sa force sa force c'est ça. bon parce que ñooñu ñëpp nga dégg ñuy wax. ñi ngay junj ñooñu. mais ils viennent d'où ils viennent de. xaaral ma joxaat sapeur pompier doyen. doyen ñun waaw laisse ma terminer non non non dama da may bàyyi ma. pa ma pare de non xam ñu da ngay wax. Cheikh Tago. Euh, Fatou Tago doyen doyen bouclé. trois wax ñi nga xam ne ils nous ont quitté. waaw nañu dem ba ci kanam ñu xool. li ci kanam rawu li gën. kay la ñuy xool fan ngeen fan. non ñooñu actuellement je te dis. et je te non ñooñu ñu ngi mën seen bonhomme de chemin. non ñooñu c'est des ils sont en classe d'initiation c'est normal qu'ils fassent du bruit bu ñu génnee ci classe yi dañu taxaw ci mbedd mi di tàppante di fonte ñooñu ils sont en classe d'initiation. non nous avons dépassé ñun ñu nga ca ñun nous sommes des universitaires nous sommes dans la réflexion c'est différent de ceux qui s'initient qui viennent apprendre comment faire la politique il faut les écouter pour nga xam ne ñii xamuñu politique. il faut les écouter it yi nga def ni yenn yi gars yi di wax di fa nekk di wax non non non nous gis nga bu ñu taxawee Sénégal daal leen wax loo xam ne incha allah du dañ bu ñu falee le vrai changement je te dis moi je fais partie de ceux qui avaient proposé par exemple. dans, le domaine de l'éducation rek wax la mu terminer par exemple dans le domaine de l'éducation ah. j'ai dit aux gens écoutez il faut aller vers l'autofinancement ça c'est des innovations majeures. waaw ouais, d'accord c'est bon d'accord. fexe ba suñu njàngale tubaab yi dootuñu ko dootuñu ko yore. parce que ki la abal xaalis moo lay xolloo fi nga bëgg. loolu kañ ngeen wax si aujourd'hui on nous a imposé le curriculum et mais c'est parce que tout simplement. loolu discours bu bees la si mais ngay dégg loo xam ni mooy changer Sénégal. boobaa ko boobaa parce que. booy ndaw wax na noor ba pare parce que loolu mosuloo ko mosuloo ko dégg. de booy ndaw financement de l'éducation nationale ah. les questions liées par exemple à la prise en charge des jeunes. immigration clandestine bi comment régler ces questions là mais on a déjà mis en place un programme un projet il y a des projets qui sont Barça Barça jamonoy 2004 mais wax na ci ba tey Idi premier ministre non non non Barça Barça c'est avant lui ah. moi moom sama turandoo man man je suis des Yaraax j'habite Thiaroye Azur mais je suis des Yaraax. c'est avant Idi. c'est bien avant déjà dans les années au début des années ci 2000 bi. mu ñëw ah, waaw 2000 il n'était pas ministre. mu ñëw nekk non 2000 affaires yi commencé. moo nekkoon directeur de au moment où je te parle au moment où je parle mon homonyme. c'est dans les années 80. mais Barça Barça ci jamono non non les xam nga lan dafa feeñul woon. waaw mais slogan bi dafa feeñul non le slogan c'est parce que par la suite affaire bi dafa fes dafa fës. d'accord Sall mais je te dis une chose. Sall bàyyi ma terminer non non non bu temps bi jeexee aussi. il faut que ma la dara Birama ñun daal ñu ngi liggéey. ci tekk ci suñu tekk tekkaaral bu jot wa euh, bu wax jotee incha allah daanu daanu wax et bu boobaa. je crois que Sénégal yi daan ñu may seen bopp dañoo fatu di liggéey. mais am na ñu nekk sur le terrain di liggéey. fekk am na ñu nekk ngeen ubbi buntu bi nag fekk bayal bi. fekk waa tur